mbokki déglukati émission yoonu njub mu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci déglu bi sunu mbég rëy na ndax ni ngeen fulaale émission bii di seen bos bataaxal yi ngeen nu bind yépp jot nanu leen te di am yaakaar ne ku nekk jot na tontam xarit yi am na jëf ju am solo ci niti diine yu bare ci àddina jëf jooju moo di li ñuy tudde koor moo tax tey nu bëggoon a gëstoo ndoog yéen ci mbirum koor ba xam ni ko kàddug yàlla gise noonu dinanu gën a xam lan mooy njariñu koor ci gàttal mënees na wax ne koor moo di bàyyi ab diir lekk naan sëy ak ñoom seen ci wàllu saayir ñi seen xam-xam màcc jëm ci wér wérgi yaramu doomu aadama wax nañu ne koor lu baax la ci nit pexe la muy may mbàq gi muluñ ñam yi muy noppalu léeg-léeg loolu am na solo ci mbaax gi ndaxte njàng mu nekk war na am àllarba waaye solo koor weesu na foofu li wóor mooy su njariñam yemoon ci wàllu saay rekk kon ñu bari duñu ko fulal wante fekk na ci wàllu baatin itam koor dafa am solo koor nag ñaari xeet la koor gu coobarewuwul ak koor gu coobarewu koor gu coobarewuwul moo di lu mel ni kooruk ñeen fukki fan ga yonent yàlla muusa defoon ca kaw tund wa mu tase woon ak yàlla mooy itam kooruk yonent yàlla iliyaas ca tukkeem ba mu jëmoon ca dëkku oreb moo di it kooruk ñeen fukki fan ya yeesu nekke woon ca màndig ma laata muy tàmbale liggéeyam ci kaw suuf daanaka kenn ku nekk ci ñett ñooñu fekk na ko ci anam yu ko mayul woon mu mën a sàkku aw ñam mu xéwloo waaye su fekkee ne koor yooyu coobarewuñu woon am na yeneen misaali koor yu coobarewu mooy xeetu koor gi nga xam ne danga koy def te lenn gawu la ci mënees na cee gis misaal ci dundu nit yàlla yu bare ci mbind mu sell mi ñoom la doon soob ñu def ko ci seen coobare bopp noonu dañuy gis ci kàddu yàlla ne amoon na koor yooyu mbasa daan am wala njekkar bu ko defee nit ñi ci seen coobare bopp daldi woor boole ko ak ñaan ci yàlla ngir yàlla wéral leen sorel leen mbas mi wala fitna ji te itam gis nanu ci kàddug yàlla ne bu taalibe yeesu ya daan am mbir mu jafee lijjanti daan nañu woor ci seen coobare bopp boole ko ak ñaan ci yàlla ci misaal bu ñu waraana a soobu ci mbir mu am solo ci liggéeyu borom bi dafa am bés taalibe yeesu ya di jaamu borom bi ak di woor xel mu sell mi ne leen beral leen ma barnabas ak sool ngir liggéey bi ma leen woowe bi ñu ko déggee ñu daldi woor ak ñaan teg leen ay loxo ba noppi bàyyi leen ñu dem te itam gis nanu ne bu ñu daan am lu leen jaaxal dañu daan woor boole ko ak ñaan ci yàlla ngir mu dimbali leen faj seen aajo taalibe ya amoon nañu jafe-jafe ak euh, rab wu dëgër bopp mbind maa ngi koy nettali naan genn góor dafa ñëw ci yéesu bés sukk naan sang bi yërëmal sama doom ndaxte dafay say di am coono bu metti léeg-léeg mu daanu ci safara léeg-léeg mu daanu ci ndox indi naa ko ci say taalibe waaye mënuñu koo faj noonu yeesu tëkku rab wa rab wa génn ca xale ba mu daldi wér ca saasa bi loolu amee taaliba yi ñëw ci yéesu laaj ko ci pegg lu tax nun mënunu woona dàq rab wi yéesu tontu leen ne xeetu rab wi du génn lu dul ci ñaan ak koor kon xarit yi bokk na ci jëmuy koor gu dëggu toroxal bakkan noonu ruu gi gën a am doole nga gën a mën a wéet ak yàlla ci ay ñaan wéet ak yàlla googu nag moom am na lu mu war a jur moo di li yonent yàlla esaayi wax ne koor gu dëggu mooy yeewi jéngi coxarte yi dagg buumi njaam yi goreel ñi ñu noot ku xiif nga leel ko ku rafle nga wodd ko te fat doxandéem bu ndóol noonu ca jamonoy kóllëre gu jëkk ga koor nekkoon na lees daan faral a def yoonu yawut dafa santoon ña koy topp ñuy woor benn bés ci at mi terewul nag farisiyen ya sàkkoon nañu yeneen fan yu ñu daan woor ci at mi wante dara sababu ko woon lu dul ngistal ci jamono yéesu it nit ñi daan nañu woor benn bés taalibe Yaxya dañu dem ci yéesu ne ko lu tax nuy woor nun ak farisiyen yi te say taalibe duñu woor yéesu tontu leen ne ndax gan yi ñëw ci céet dinañu naqarlu dara li fekk boroom céet gaa ngi ànd ak ñoom waaye bés yaa ngi ñëw yu ñuy jële boroom céet gi ci seen biir booba nag dinañu woor xam ngeen ne kenn du daax mbubb mu màggat ak sekkit wu bees ndaxte sekkit wi day ñoddi mbubb mi te xottiku bi gën a yaatu li loolu doon misaal mooy ya dafa doon jagal la mu fekkoon nit ña nekk ca te noonu mu doon leen waajal ba ñu mën a teeru te nangu yéesu musalkat bi mu leen jëmale woon moo tax ba waxtu wa jote mu seen yéesu ne leen kii mooy mbotem yàlla mu ñu nar a rey ngir dindi baakaaru àddina si kon yaxya dafa doon jagal la mu fa fekkoon yéesu nag moom dafa ñëw indi lu bees yiwu yàlla la yéesu indaale mu méngale ko ak ndimo lu bees koor ya yawut ya daan amal te bokkul ak koor galeen seen yoon santoon koor yooyu aaday nit kese lañu woon kon kenn warul woon forcer taalibe yéesu ya ci topp aada yooyu ndaxte du lu xelu ku nekk xam na ne lu bees kay soo ko dabb daaxee sagar wu màggat saafara su jur jàngoro rekk lay doon noonu it dundinu baatin wu bees wi yéesu indi mënula ànd ak dund goo xam ne mu ngi sës ci aada yu nit tëral loolu lépp nag tekkiwul ne taalibe yi waruñu wor waaye bu ñu demee bay woor itam war nañoo moytu def ko ngir sàkku ca njub waruñu woore ni lenn ca niti jamono yéesu ya mu doon ŋàññ waaw dafa am bés yéesu nettali ab léebu jëme ko ci ñi foog ne seen jëfi diine leen di tax a jub mu ne dafa amoon ñaari nit ñu dem ca kër yàlla ga di ñaan kenn ki dib farisiyen maanaam ab boroom diine ki ci des di juutikat farisiyen baa nga taxaw di ñaan ci xelam naan yow yàlla maa ngi lay sant ci li ma melul ni ñeneen ñiy sàcc di def lu jubadi te di njaaloo rawatina juutikat bi ay bés gu nekk damay woor ñaar yoon di joxe asaka ci lépp lu ma am juutikat ba moom ma nga taxaw fu sore te a siggi sax xool asamaan waaye ma ngay fëgg dënam te naan yow yàlla yërëm ma man mii bàkkaarkat yeesu teg ca ne maa ngi leen koy wax nit kooku ba muy ñibbi këram moom la yàlla àtte ni ku jub waaye du farisiyen ba ci nettali bi yéesu doon na jàngale ne yàlla du àtte kenn ni ku jub ci kaw li nit teg jëf yu baax mel ni woor sak asaka ak ñoom seen xolu yàlla du sedd mukk ci pexe nit ndaxte sunuy pexe matuñu ca kanamam li yàlla bëgg mooy ñu ràññee sunu melo bàkkaar mel ni juutikat bi fëgg dënnam te naan yow yàlla yërëm ma man mi bàkkaarkat li yàlla bëgg mooy nu gëm yoonu mucc wi mu tëral koor mën na am njariñ waaye ci lu jëm ci jubale bàkkaarkat yi ak yàlla aji sax ji amul benn njariñ ci linjiil yéesu tegtal na melokaanu kuy woor ne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 xoolal farisiyen ya njiiti diina yu naafeq yooyu ni nu ko gise ba noppi at mi daan nañu ci woor lu mat ñetti weer ak genn wàll moo na terewul keroog ba yeesu di jàngal mbooloo ma ca kaw tund wa mu ne leen bu seen njubte ëppul njubte xutbakat yi ak farisiyen ya du ngeen tàbbi ci àjjana mukk kon ñoom seen koor yooya ana lu mu leen jariñ tus kon yow mi def ni ñoom it sa koor dara la la waaye yéesu bëgguloon a wax ne faawu nga weesu ñetti weer ak genn wàll yi farisiyen ya daan woor ci at mi ngir sa koor mën laa jëriñ dara déedéet li yeesu bëggoon a wax mooy waaw mën nga woor waxtu wu mu la soobe ndaxte amul fenn ci mbind mi fu ñu wax ne waxtu sàngam ci at mi nanga woor nangami fan amul waaye itam leneen li yeesu bëggoon a wax mooy li lay tax a mucc du say jëf yu baax li ko waral mooy ni ko yonent yàlla esaay yi waxe woon bi mu naan ñun ñépp a taq bàkkaar te sunuy jëfi njub yépp mel ni sagar wu tilim kon daal mbokki déglukat yi leer na ne njub fa kanam yàlla mënula jóge ci jëfi nit koor benn xeetu jëf ju baax la njariñam mooy noot sa bakkan ba nga gën a mën a wéet ak yàlla ci ñaan ak di ci mbind mu sell mi ndegam nag koor jëf la te mu leer naññ ci kàddug yàlla ne kenn du mucc ci kaw yi jëfam nanu wut mucc gi fi mu nekk kàddug yàlla nee na ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayu yàlla la du payu jëf ngir kenn du ci kañu yeesu nee na man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc kon yow miy déglu li nga war a xam mooy mënuloo def dara ngir jubale sa bopp ak yàlla dara li war a am ngir nga mën a tàbbi àjjana ëllëg yàlla defal na la ko ba noppi defal na la lépp dara desetul jenn jëf képp ji la mën a musal ci safara yeesu def na ko ba noppi bi mu tuuree deretam ci kaw bant ba ngir fayal la sa boru bàkkaar benn yoon ba faw deewu almasi bu seel bi pexe mi yàlla la mooy pexe mi mu rabat ngir baal la say bàkkaar te ba tey dëkk ci sellaayam noonu mbind mi nee na boo wékkee sa yaakaar ci jëfu musalkat bi la gàddul sa mbugalu bàkkaar yàlla dina la baal mooy lu yonent yépp seedeel yeesu ne ku ko gëm yàlla dina la baal say bàkkaar ci turam loolu moo tax ñépp ñi gëm mbind yonent yi xam nañu ne mucc gi mënula jóge ci doom aadama mayu yàlla la bu mucc gi nekkoon luy jóge ci nit kon xoggaliku dina gën a bare waaye kàddug yàlla dafa wax ne du pay jëf ngir kenn du ci kañu ndaxte jëfu yàlla lanu moonu bind ci kirist yeesu ngir nu wéy ci jëf yu rafet yi mënu fàgguloon ca njalbeen ga kon taalibe yeesu yi jëfi yàlla lañu yàlla mooy ki nu may xelam ak dooleem ngir nu wéy ci jëf yu rafet su dul woon loolu du nu mën a def jenn jëf ju baax ci bëti yàlla léegi nag yow miy déglu ndax jekk nga ngir am dund gu fees ak jëf yu baax wóor na ma ne bëgg nga ko lool sax te loolu it la yàlla di xaar ci yow waaye nag ngir mu mën a nekk ci anam yi gënal yàlla faaw mu am lu ko jiitu nag danga wara nangu ne bàkkaarkat nga ba joteetuloo ci seelaayu yàlla te soo gëmee ni yéesu mi la tuural deretam ca bant ba ngir far sa bàkkaar yàlla dina la baal di la àtte ni ku jub te it yàlla dina la may xelam mu sell di kàttanu def ay jëf yu mu rafetlu yu àndul ak benn ngistal kon xarit yi fii lanu yem tey ba beneen su ngeen bëggee xóotal seen xamxam xam ci mbirum mucc gi leen yàlla bëgg a may mën ngeen nu bind nu yónnee leen benn téere bu tudd tout ce qu'on dit les prophètes te du ngeen ci fay dara téere bii nu leen bëgg a baaxe ëmb na lu ëpp junni aaya yu nekk ci mbindi yonent yi boo noppee jàng téere bi dinga mën a xam bu baax li yàlla bëgg ñépp xam ko maanaam ki mu doon ak li mu def ngir nga mën a dëkk ak moom ba faaw kon nag soo bëggee am benn exemplaire ci téere bii di tout ce qu'ont dit bind nu ci sunu adresse bi di yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayug yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañ